même Macky Sall tamit maa ngi koy dégg mu naan doon la torturé nga bàyyi ba génn si kaso bi doo ko wax ne dañ maa torturé nangam nangam Macky maa lay wax lu leer ñun ñun lañ doon torturé ñun. waaye li Cheikh Bara toogoon si benn émission maa ngi koy dégg mu ne dóor nañ fa nit ba ay waay yàlla mu yàqu loolu am na. Ah ay dóor nañ fa nit ba ay wala yàlla mu yàqu. waaw garde bi ko dóor xam naa turam ñaa la sant moo ko kajje ba mënatut a dox nekkatul góor mën naa ne parce que waay yàlla yàqu na loolu am la loolu am na foofu noonu. biir kaso bu rëbës bii. dóor nañ fa benn patriote tamit ñaa moom tamit ma jàppoon na fa benn patriote dóor ko ba bu toj loolu am na fa waaw gis gis nañ fa nit ku dóor tamit ba mu wàcc liggéey loolu tamit am na fa booy bi Grand Yoff la dëkk. loolu man maa ko gis kenn nett lu maa ko fekk parce que am naa fa 11 mois. kooru daaw ga lan ma jàpp kooru daaw lan parce que dem naa fa at kooru daaw ga lan ma jàppoon koor gaa nga waaj a dellu sot fii lan ma jàppoon bi li ma jël dama yóbbu si luñ tegul dara si luñ amul benn firnde xëy suba jekki-jekki woo la nga ñibbi jekki-jekki di waxaat waxee amnistie yow ay nit def leen nga àtte leen nan ñu àtte nan ñu yóbbu àtte ñu bu ñuy tëj ñu tëj ñu man na buñ may tëj nan ma tëj te bàyyi amnistie bi quoi buñ ñu amnistie buñ ñuy tëj nan ñu tëj mais jàpp nit ci kaso bi dóor ko ba mu dee alors après yow loolu lan ngay wax seen i mbokk a ah, loolu ñoom ñoo ko xam seen i mbokk nañ jug lijjanti loolu loolu ñoo xam waaye du yoon de en tout cas dañ laa dénk détenu bi man fekkee naa da ko dóor ma fayu garde yi jël ko sat ko yóbbu ko dóor ko ba mu wàcc liggéey waaw parce que bañkat la ko waa xam naa parce que kenn dóorloo wu la dan laa yorloo boo mënul yor nga delloo dan laa yorloo waaye kenn dóorloo loolu yëpp fekk na ma fa Diop tey mii lay wax yow dóor nañ ko fa dóor yi métti waaw ba gaañ ko su tànk ñëw sànni ko suñu nekk suñu sàmbur suñu sàmbur neuf daal ko fi baraage baraage nañ ko fa quatre fois ci lu ma fekkee yoo xam ne day jot a garde yi asura mi tànk mi kaso la ko jëlee ngeen ko yéen ba muy nekk si biti xam ngeen dara dalu ko ba mu duggee si kaso bi ba mu génnaale ay beek la génnaale lan lan ko def lan lan ko def ak ñeneen ak ñeneen yoo xam ne leen leen duma te luñ tegul fenn waaw ah, loolu dafay war a jóg te loolu dana fi jóg incha allah képp koo xam ne maa maanaam ko def nga si réew mi lu dul yoon danañ ko leer garde yi nga xam ne mos ñoo nekk si kaso bi di def lu leen neex ñun xam nañ leen amul kenn kun si xamul ku fi def na ko sudul noonu boo génnee dana incha allah mu nguur gi jógee dana ko leeral maanaam ko caaxaan yi nekk ci réew mi dafa war a jeex ci réew mi en tant que yi nekk ci réew mi dafa war a jëx ci jàpp doomu jàmbur di leen tëj ci kaso bi ñaata nit ñoo des ci kaso bi kenn xamul nu mu toll Macky Sall dara man maa la ko wax ah barke alquran génnewul tus kaso bi koo romb patriote la man maa la ko wax génnewul dara ñaari junni nit ak lu topp la génne barki démb nu ngeen téeméeri nit ak lu topp la génne ñaari junni nit boo si bàyyi ñetti téeméer lan si des am na sama benn boy ma nga fa des ba tey dafa feebar feebar bu metti ma nga infirmerie ni ma waxee nii di barki dem bi ma nga yóbbul bi ma nga yóbbul benn benn café cereeg yooyu noonu sàmm foofu laa ko yóbbu infirmerie laa ko yóbbul moo ngi infirmerie ba tey wax naa ba sonn ki jëfi infirmerie bi foofu noonu ci kasa bi jàllo chef jàllo nee naa ko booy ba dafa feebar jàppale ma ci ngir yàlla nga bindal ma pour mu dem ci 6 bi ñu bàyyi ko mu ñibbi moo ngi nekk cabine 6 ba tey kenn bàyyiwu ko moo ngi ci kasa bi ba tey bàyyiwun dara booy yaa nga ba tey ay Lamine ah yaa nga ba tey Ibrahima Sawak boo yëpp ña nga fa ba tey Ibrahima Kole ñoo ay Bilal Diatta ña nga fa ba tey kenn génn si waaw euh, sëñ kii kii Mbacke sëñ am Mbacke waaw sëñ Cheikh Amadou Bamba Diop waaw ay Ahmed Mohamed Seck waaw ñooñu ñëpp ña nga si kaso ba tey kenn génn ci kenn génnu ci génn Macky Sall génneegul dara bu mu ñu divertir naan ay détenu politique génn naag jàmm la bëgg bëggul benn jàmm bëgg dem mu ngi ni jàppaat euh, kii Touré nga maire ngeen dem Touré loolu jàmm la bàyyiwul kenn kenn la bàyyiwul kaso baa ngi fees jàll ba tey loolu nan ñun sénégalais nan ko xam te loolu nan taxaw pour ñuy nekk ci kaso bi génn loolu mooy dëgg na bàyyi doomi jàmbur ñu dem kenn defu fi dara am na benn boy boo xam ne bu ma la waxee lu nga ko jàppee da ngay rey ba bëgg Ibrahima Koulé la tudd kolobaan gi lan ko fekk muy jënd ay daal ñu ne ko noo tudd ma ne Ibrahima Koulé ñu jàpp yóbbu fekk ni ma nga ànd ko noo tudd ma ñu jàpp xam ne seeni sant lañ leen jàppee barke alquran manifesté wuñ defuñu dara gis jàpp ko ku liggéey ba wàcc nga jàpp ko benn booy boo xam ne Alseyni Diallo la tudd ñëw jugee génne ñëw fi am fi ñaari fan déggu wolof si kaso bi la déggee wolof buy wax ak yow wolof sax nga yaakaar dalay saaga ñu jàpp ko tëj ci kaso bi ñaari fan la am Sénégal ak yeneen ak yeneen ñoo xam ne manifesté woon am na koo xam ne patriote la carrément waaye nee na ma barki alquran manifesté wu ma woon dama doon wàcc ñibbi waaye man patriote la Ousmane Sonko laa bëgg waaye wax dëgg rek dama doon wàcc ñibbi loolu fan lañ ko teg ci réew boo xam ne dañ naan réew démocratie la réew moo xam ne nangam nangam Macky Sall bay wax di jaay arrogance di yab di yab sénégalais yi nga xam ne sénégalais ya ko faral yow nga nekkoon ab baadoola nekk fële sénégalais jël la fal la daf la njiitum réew nga toog ci réew mi bay wax nit ñi naan ñàkk yi boole nga soxaloon ma maye ko jël suñu ambulance ji kii naan ay ku ya gedd sa yaay ay waxi xale yu ñàkk fayda yooyu loolu kenn du ko yërëm réew sëñ ji réew boo ko yor da nga koy yor si responsabilité yàlla loolu la ñuy yërëm waaye doo jàkkoorlu nit ñi nga xam ne ñoo la jox réew mi di leen jaay arrogance di leen jaay yabaate di leen jaay manque respect naan leen ay boo leen soxlawul lii ma ne ku gedd sa yaay ale ku géewul ni nangam nangam waxtaan nan waaye man maa yor dolog dogal bi mënul leen fexe jàpp élection élection yi maa ko war a jàpp xam nga may jàpp fii leen ma feek sama place bi ngeen ma fekk dama interview fii leen ma waaw fii leen ma fekk ma toog ñu jàpp ma jël ma yóbbu ni ma da doon def lii da nga doon def laa da nga doon def lale xanaa boog laa boole waaw xaw ma waaye daal en tout cas du première fois ñu jàpp ma du deuxième fois ñu jàpp ma du troisième fois ñu jàpp ma quoi. xam naa ni lenn rek tax ñu jàpp ma mooy bëgg Seydina Ousmane comme ni ngeen ko gisee nii si ginnaaw Seydina Ousmane moom sa man politique.